وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mataa'un ilaa hiin qul rabbi ihkum bil haqq wa rabbuna arrahmaanul musta'aanu alaa maa tasifuun sadaqallahul aziim teg mbàkk yi kenn du ci noppi dara loolu ba léegi bëri na mu nawet bi kenn du ci noppi dara alhamdulilah sant lool sant rek sant rek war kenn di ñaan ndollam di wéy di wéy rek rajo bi incha allah awlen kumba awlen kumba awlen kumba amiin amiin waaw ci mam jaar yow ak kanam bu njëkk la kanam bu njëkk la waaw surtout sëñ Malick Dieng maam Diarra Dieng. maam Diarra Dieng waaw ah, doomu Cheikh Abdou Dieng moom sëñ Malick Dieng. Ah, ca Ndiarène waaw waaw ah ndeysaan ndeysaan. Ah, <laughs> yow xam nga li sant rek sant da nga xam ne bu ñu koy defee rek sant nañu si waat. waaw walaay walaay Mbacke xam nga lu ñu koy sant lu ñu koy sant la daal loolu loolu duñu xam waaw. jërëjëf ok jërëjëf. waaye nag bu ngeen weesu rek xeeb leen. ok jërëjëf Mbacke. leen bu baax a baax ok jërëjëf. xam ne lépp seen yi woon nag yi wala yëpp ñu si kaw yoon. ok waaw ñaanal ñu baax rek. waaw suñu yéene day wax dëgg yàlla moom moom. xeeb nañ ko lool waaw waaw waaw ñaan ñu baax waaw kay jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf waaw kay jërëjëf Mbacke